ganaw juróom ñaari weer yu passé noonu tëjoon len schools yi students yi ak teachers yi yu nekk fi si Gambia bi ñu ngi jëm pour jël ko fi nga xam fofu foofu leen leen won ci si weeru jido Jidofo Mori okay principal bu Glory Baptist International mo wax na ne am nañ lépp li nga xam loolu leen soxla pour wat jàngale ñun nak paré nañ bu baax parce que am nañ yëpp pour wat jàngale xalé yi yu fi nekk te su ñëwee si coronavirus bi ñun am nañ yëpp lu ñuy arrêté suñ bopa parce que so xolé si bunta bi di nga gis ne ñu fa tek ci yo bo xam ne bu nekk buy dugg fi dafa rahas loxoom sécurité man bi dina ko test mu xool température bi fu mu toll dina sol max balaa moo dugg si biir school bii nii Mr Morris doole na di wax ne nompa bi nga xam ne moom lañ wax classe bu nekk boobu la mooy jël dañ ko war a yokka ba footi si xibaar bu ma déega dañ ne classe bu nekk dafa war a jël xale yu toll si taati waaye man nag maa ngi wax ne pour ñu yokka nomba bi parce que dangaa gis ne classe yi dañ rëy trop jël xale yi nga ñoom ñëpp ay xale yoo xam ne ñu ngi jàng fii si Glory Baptist te ñoom wax nañ ne ñoom lii daf ñu sonal torop te jum school bi sonal nañu torop parce que dangaa gis ne ñun jekkali wuñ suñ grade 11 te maa ngi xalaat naka la ñoo jëfandikoo fii si grade 12 bi at bii dina métti torop si ñun parce que soo gisee dañuy gën a yokk suñ time te dañuy study bu baax te tamit suñ teachers yi am nañ pour jàngal ñu bu baax principally Glory Baptist moom ñaax na nguur bi pour mu dimbale jàngalekat yi surtout ma jàngalekat yi nga xam ne ñu ngi si private schools yi xibaari koor ci bal ma fii si Paradise